comme ni leen koy toppalee lépp loo xam ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi dinañ leen ko toppal rawatina tey jigéen ji nga xam ne moom la ñu dalal nee naa leen miin ngeen ko nag ci écran yi lool mu jigéen joo xam ni jigéen ju jàmbaare jigéen ju man góor nee naa leen su leen ko waxee jigéen ju man góor jigéen la joo xam ni métier mi muy dugg moom moo ci njëkk a nekk jigéen di ci yëngu. ci maanaam ci làmb bari bariwut kon ndax bi mu ci duggee jaaxal nañu baree baree baree baree bari ci waxatuma rek ci taar beeg. ci sexe beeg ci yooyu gars yi naan kii lu ciy def ak yooyu coow li bari trop tey ñu war a waxtaan ak moom lu baree baree baree bari nag waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci lu baree baree bari mbokk yi ki ma dal xam ngeen ko de <laughs> ah <laughs> pël bu rafet laa invité tey war a waxtaan ak moom lu baree bari pël maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> ay jamakan maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu sa soxna su baax si nga ñëwoon ngeen fi bi ngeen di ñëw ay célibataire ngeen mais bi ngeen di ñëwaat da ngeen a <laughs> sëy marié wu kon xam ngeen ne fii <laughs> fii dara ngi fi <laughs> yal na leen yàlla defal jàmm yàlla saxal sëy bi ndaxte ànd dafa metti des fois bu ànd amee ñii naan day dem ñii naan du dem mais chaque fois rek ñii naan du dem ñooñu dañ leen di yokk jom ci ñooñu ngeen di gën a focus xamal leen ni fii lu dul yàlla neen la te yàlla moo yor luy dem ak lu dul dem mm-hmm. bañ leen a bàyyi xel nekk ci li nga xamante ne ci ngeen nekk mm-hmm. ndax ay xale ngeen xam nga te lii mooy liy farata mm-hmm. lii moo lii lii la yàlla bëgg lii la yonenti bëgg nit ku baax ku nekk lii nga bëgg maa ngi leen di ñaanal yàlla saxal ànd bi seytaane bañ a dox seen diggante yàlla may leen njaboot gu góor ak gu bar gu jigéen na lépp barkeel bi jaay Seydina Muhammad sëy nag dafa metti neexul moom rek laay wax na muñ góor góorlu focus xam nga concentré wu ci yow daal bañ a déglu bu ko defee rek macha allah jàmm day am boobaa day tëj buntu bi kenn du ñëw yow bàyyi ma lay conseil soo ma toppee rek kenn du ñëw ah, bàyyee naa la ko waaw da ngay da ngay gumba tëxluur bañ a lijjanti dara sooy lijjanti da ngay lëj da lay indil problème da yow da yow lañ takk yaa toog yaa gérer bul toppatoo leneen mm-hmm. foofa toj ndeysaan pël noonu la conseil yi rafet na trop wax dëgg ci yàlla sànq maa ngi daan jigéen ji njëkk dugg ci làmb maanaam jigéen ji njëkk dugg ci làmb nga ne ma déedéet. déedéet man kay am naa ñu ma fekk de. waaye bariwul de kon jigéen ñi dugg ci biir. waa ñoom waa di buuxante. Ah. ñoom matu nag ñoom fi fekk ami Kole foog naa su ma juumul. wala boog ñoom dañoo nekkoon ci beneen côté ndax ñoom moom nga ci lutte simple bi lañ nekkoon. Mm-hmm. ñun ñu nekk ci lutte avec frappe bi. mais yàlla baax na daal. tur mooy sonal borom ay ca di nuyu ñëpp di ñaanal sama yaay gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp yaay di ko ñaanal képp doomu aadama ak bépp jullit ki ne si ñi ne si jafe-jafe yàlla leen ci yàlla génne ñi ne ci xat-xat yàlla génne leen ci ndax doomu aadama ak nattu ñoo ànd yàlla mooy xool ko neex rek mu def ko teg ko doomu aadama bi mais boo ko muñee rek yàlla tamit da koy teggi ndax des fois day nattu jaamam di la natt xool ndax li ma la teg mun nga koo muñ boo ko munee muñ mu dindi ko boo insister mu teg la lu gën a pire te doo ci mun ñaar dërëm kon doomu aadama dafay muñ rawatina doomu aadama rawatina jullit xam nga rek diaspora bi nag moom dama amul seen fay ñooñu awma seen fay du xaalis du dara nag ndaxte makan ku bàyyi léppam toog di la seetaan bàyyi la xel di la déglu kooku yaakaar naa ku la bëgg la ku la sopp la du noon gis nga ku munut ci dara du mun ci yow dara. du la xool ba lay déglu. te nit bu la bàyyee xel di la déglu rek kooku am na fum la teg ñi amul kayit yàlla na leen yàlla may kayit ndax tukki neex na waaye si moo dàq. ñi am kayit tamit yàlla na leen yàlla yombalal lépp bu ñu am benn jafe-jafe di dem di ñëw di nemmeeku seen i njaboot di ñibbi tukki dafa métti de. pël bu rafet bu ñu ko waxee ni pël bu rafet bu alburaax ndax bi ma fi mujj maa ak yow comme ni ñu koy waxee donte booba yaa ngi. dimbali ñoog seen làmb. waaw comme ni ñu koy waxee nii rek pël bu rafet bu alburaax ndax yaakaar naa ne comme ni ñu koy waxee sama door bi ma fiy ñëw fekkat naa ko tamit booba mi ngi seen làbb waaye tey mi ngi alburaax pël bu rafet ak alburaax nekk di diriger plateau di fa liggéey liggéey bu am solo liggéey bu jaatu ci relation pël bu rafet ak Baye Ndiaye. ayca ah, di ko nuyuwaat rek moom baay Ndiaye sama PDG comme ni ma koy waxee nag sama ñaari PDG muy Baye Alé Ndiaye ak Aziz ah relation bi mooy ay liggéeykat yu daje lañ rek mu nekk macha allah nit ku baax nit koo xamante ne ku joxe cër xam nga Sénégal dafa metti waxee booy wax dañuy naan xaalis lan mooy xaalis gis nga àdduna nit da ngay wax yi nga xamante ne moo jar a wax mu yu rafet yi yu baax yi pour man xaalis deuxième la te man ku ma xam-xam ne man topp ma xaalis man kóllëre laay topp ngor respect ak cër te loolu yëpp mu ngi ci ki nga xamante ne mooy Baye Aly Ndiaye mm-hmm. ba ci magam Al Amin muy Aziz mm-hmm. man li ma gën a bëgg si doomu aadama mooy ku ma jox cër mm-hmm. man boo ma jox ay milliards te joxoo ma cër barki yàlla bëgguma man boo ma joxul dara jox ma cër xam maay kan man loolu ma gënal ay milliards valeur barki Seydina Mohamed ay milliards cër moo ma ko gënal. relation bi yàggul liggéey bi sax doon na te yàggul ndax daanaka pël bi mu commencé rek ci lañ ko jël loo xam te ni képp koo xam te ni yaa ngi liggéey bëgg nga ko muy oto waruwaay yëkkati ko jox la ko. waaw waaw man xam nga oto jomb ma. tey jii tamit moom mënoon na koo am tamit du ma ko yéene. Mm. mooy li ma la wax rek yéene moo ëpp solo. parce que booy liggéey ak nit surtout jigéen. muy daj ay coono di dem di ñëw man du ma tànkam lu mm-hmm. tey jaadu na nga ne ko ah dama laa bëgg a teggil yenn coono yi nga jox ko oto mhm. te yaakaar naa même buñ liggéeyutoon sax man ak moom mhm. war na ko mun a jël ne ma am mhm. ndax rakkam laa jigéenam laa jarbaatam laa léppam laa comprendre nga mu nekk tamit nit bu baax muy geste boo xamante ne àdduna yëpp ci kontaan koy nit bu baax sa xol rafet noonu la demee mais ñëpp ci kontaan barki alxuraan oto bi amul ku wóotewul amul ku ñaanalul baay mhm. amul ku félicité wul baay mhm. amul ku rafetluwul li nga xamante ne moom la Baye Ndiaye def. ko yëkkatee bett na la bi mu koy jox. waaw bett na ma bett ma ndaxte nee naa la ñooñu ku leen xamul mhm. ku leen xamul rek moo leen di jaaxal mais ku leen xam xam ne seen yéene ci doomu aadama ndax dañoo man seen nit macha allah billaay dañoo man seen nit bett ma ndax xam naa ne mun nañ ci man lu ëpp loolu lu raw loolu ndaxte xam naa ne man jàmbaar laa te liggéeykat la ñafekat laa ñoom it ñuy nekk ay homme de valeur nekk ñu diiñ gis nga ku leen jàppee dof foog ne mun nga leen nax yaa dañ lay reetaat rek noppi xam ne xam nañ lépp xamoo xam nañ ne pat ak moom dëxañu moo tax àdduna nit dangay ngay modeste euh, dal yem ni nga jàppee sa bopp nga jàppee ko nit ñi bul jàpp ne lépp looy def rek teg xel la wala teg diil wala diw yaa ngi koy nax fii kenn mënul nax kenn mm-hmm. li ma la mën a wax mooy Baye Ndiaye mm-hmm. maa ngi koy sant mm-hmm. di ko gërëm di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam nee naa la seen yaay laa leen jàppee muy mère Khoudia seen yaay nekk nit ku baax jigéen bu jàmbaar barki alxuraan day tagg doomam yi bay jooy wóor na yàlla non jooy ma. xam <laughs> naa la da ngaa a jooy te nga jooy. <laughs> mais mais tey projet Alburax ci bari nag Sénégal yu bari ñaa ngi ci pël la génn moom moo ko créé projet Alburax. waaw xam nga maanaam liggéey jàppalante la rek tey bàyyi dafa toll foo xamante ne dafa war a am sipooru boppam di ci def li nga xamante ne mooy ay événement am mm-hmm. biñ ko ko proposé moo xam ne loolu moo jaadu. mu jël ko nag jëlee ko dënn nag mhm. ndax moom du defantu day def mhm. xam nga dangay ne maanaam damaa gaaw a jooy mhm. xam nga waaw man dama sori ci sama yaay moo tax man yaay su ma ciy wax rek sama xol bi dafay tooy noonu la ma yàlla bindee parce que yërmande bi mu am ci sama yaay la moo tax yaay man yaay bu ma gis rek damay foog ne man sama yaay laa gis moo tax sama yaay du ma ci bugg di communique adduna yëpp xam nañ ni ma mel ci sama yaay loolu moo tax su ma waxee ci yaay rek sama xel ci sama yaay lay dem loolooy problème bi noonu la demee bàyyi nekk ku ku ku ku jëmee engagement ndax matériel yi ñu yor macha allah tey buñ koy naatable ci télé lay doon mu génne ci ay millions tey mënoon a ubbi seen youtube am di xaal di xaar ay revenu mais def ko poosam lay jël di def te soxlawut lu youtube bi di liggéey xaalisam lay jëlaat di ko fay li nga xamante ne mooy employé mm-hmm. donte YouTube bi nag mu ngi fay mais xaarut YouTube mm-hmm. dëgg la yàlla bëgg xaarut YouTube mm-hmm. te amul képp ku fay liggéey sa salaire tardé wul yaa ngi ci conditions yi normal xam nga yaa ngi liggéey liggéey bu jaari yoon te liggéey balaa nit di ko mën a def day fekk nga ñu teg la ci conditions yu normal bu dee ay wàllu matériel nga am yu normal xam nga bu dem jotee sa dem yomb xam nga foofu nag boo liggéeyul nag wax dëgg yow yaa war a xoolaat sa bopp waaw parce que ay jàmbaar lañ te ay liggéeykat lañ yow kii magal man liggéey rek laa xam te damay liggéey ba xëy dee uh-huh. man borom kër sax su ma ko amoon yaakaaruma ci yow franchement dinaa nag def li nga xamante ne moom la yàlla santaane mooy sëy jaamu yàlla mais yaakaaruma ko yàlla bind sama bopp laa yaakaar liggéey jaamu yàlla lu ma am ma xam ne lii maa ko amal sama bopp donte bu amoon koo xam ne sax bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy ne moo fi ëppale mais man it damay xëy di def dara mu leer ma ne lii man it maa moom maako moom bu weer dee ma xam ne fukki dërëm yi man maa ko liggéey ma xam nan laa ciy def ak nan laay doolee ci kër gi dëgg neex parce que jigéen tamit du doon yaafuus di basé wu ci nit di weeru ci góor danga koy sonal respect bi mu la war a jox sa du la ko jox danga koy fàtt xam nga te nit da ngeen di war a am ay idée di échanger wante ay idée mm-hmm. su defee lii nga def lii mm-hmm. bu naree def lii nga ne ko su ma sañoon nga def lii mm-hmm. soo defoon lii nga foog du gën a baax du dëgg man de loolu laa gis ku nekk ak sa waa ku nekk ak sa opinion nag ci li nga xam ne mooy le 5 bi ñu génn diggante Sa ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène Liss Ndiago Pokola Mor Kënkëng Tafa Mbër Siteu Tafa Gueye 2 Papa Bari Bari bu nekk journée boo xam te ni affiche boo xam te ni bi ngeen ko tegee Sénégalais yi Sénégalais yëpp dañ ko affiche apprécier waaw ñu ne arène nationale ni mu mel mosu koo mel ci àdduna. ah waaw nee nañ de pour góor defaat ko noonu dina jafe du doon lu yomb mais xam nga loolu lépp sant yàlla la rek du question ñoom yàlla kii dañoo man fii yàlla rek moo mën mm-hmm. yàlla rek moo mën xëy yàlla suñu borom la. ak liggéey bi ñi nga xamante ne ñoo ci nekk muy waa Albourakh TV Events gar ci seen bakkan dawal promotion bi ndax promotion bi xaaruñ ci kenn def ci li ci war ndax communication bu amee ci mbir rek après dafay jàll communication boo moo jàll xam nga nit ñi bàyyi ci xel ndax làmb ak coow la coow li nag bu bëree faa mu demee noonu xam nga ñëw macha allah stade bi taaru organisation bi sii di Diop di tëgg fee mbëri di bëre Sidi Diop di tëgg di ambiance gisoo Mor Kankang ba mu daanee Tafa rek daa continuer ambiance bi mu daal di neex ku soxoru rek nekkoo siisumaan xam nga ne arène nationale bi wax dëgg a neex yàlla keroog ah waaw keroog Baye Alé def na fa mbir ñu koy ñaanal nag li des ci journée mi mhm. yàlla na dàq sax yi nga xamante bii nga xamante ne moo passé mhm. ndax gis nga nit sa xool bu rafetee mhm. nga baax sa yaay baax barke alxuraan loo dugg dafay baax wóor na yàlla man duma ne kenn yàlla nuyu na la man yoo xam nga ne man junne ak dërëm laay male boo tegoon milliard mhm. barke alxuraan milliard boo ko tegoon mhm. man su ma la waxee dëgg ma perte milliard yi barke yonent bi ma wax la dëgg perte milliard man sama ngor sama ngor rek laay àndal mhm. du ànd ak leneen topp ma xaalis ngor laay àndal dignité respect kese mhm. bu amul bëgguma maanaam ñu ñu ñëw ci combat yi Sa ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu waaye fi may duggee mooy Pokola ak liis Ndiago ndax am na noo mel ak Liss coow bari woon trop ci diggante Pokola ak Liss noo ko dundee ah ni ma ko dundee gérer rek xam nga man gaynde laa mhm. jigéen laa mais damay joxe cër mais man yàlla dogal na man yàlla suñu borom rek laa ragal mhm. yàlla rek laa ragal borom bët bu rëy bi ndax kuñ tëkku nga tiit da ngaa yàlla te fi yaakaar naa kenn moomul kenn kenn du sàkkal kenn koy àndal kenn du sàkkal kenn koy waxal du dëgg làmb nag du affaire de banditisme làmb làmb affaire de noobul la gis nga ñiy woote di saaga ñooñu maanaam amuñ paltu amuñ dooruñ dóoruñ fayuñ buñ xëyee amuñ luñ jox seen waa kër seen xol yi day naqari léegi seen xol yi bu naqaree nag dañuy ut ku ñuy woo di ko saaga mais man pour man sa wayjur boo ko respecté doo saaga wayjur kenn ndax man dama bëgg sama yaay ba mu ciy wax dama sama xol bi day tooy samay rongoñ day tuuru kon man duma ma saaga wayjur jàmbur waaye ko juum ba dugg sama 77 man pël nga wax ma naka sudul noonu dëkk bi tamit am na yoon dañ ciy dem ba mu jeex lu ma yoon may ma jël lu la yoon may nga jël donte nag nit bëggul teg nit lu ko metti man bëgguma def nit teg nit safaan walla leneen liis ba muy dugg ci làmb man pël taxuma man bi may jógee Kaolack di paas ñëw liis di takk ngemb man taxuma bi may ñëw di dugg ci millier bi liis njaago taxut liis dèjà bokkuñu xeet bokkuñu juddu bokkuñu diine gis bëgg yàlla moo koy def man liis sama doom la Zasim daw ma ci ukkin delluma ci ginnaaw liis lim xool ba ne ma yow yaay sama yaay dama lay xoolee bët boo xamante ne comme sama yaay la. loolu du yaayam génn àdduna. dama koy téye du yàqoo ci man. jamais au plus grand jamais. du ma ñooru du ma daw. aw ma lu ma ciy daw. sama profil whatsapp liis laa ci def su ma buggee estati liis dama koy estati silence suma kii que ce soit ndax sama connexion kenn jëndalu ma ko kenn moomu mais oo nañ ma ci waaw xaw ma yee xam nga bu ñuy wax sa doo xam lu ñuy wax. seen làmmeñ yi day damm waaw. waaye man du ma rek ku ma ci woo dootoo woote ku ma ci woo dootoo woote mm-hmm. man ci dëkk bi laa dëkk. Mm-hmm. Baye Ndiaye nee na ma mm-hmm. donte maandu nga duggoo ci daray kenn continuer loolu. waaye ku dugg say mbir dina xam ne tamit ci dëkk bii nga dëkk mm-hmm. du ma juddu jéeri te du ma mbadantaan du ma tooñ kenn nag wéeru ma ci kami tamit kenn wéeru ma ci ay Baye Ndiaye laay liggéeyal mm-hmm. wala Aziz laay liggéeyal mm-hmm. parce que ñoom ñooñu sax bëgguñ koy tooñ te yàlla tamit bëggul koy tooñ tooñu ma Jean tooñu ma Paul waaye ku yàlla nattu nag ba nga gëlëm ba dugg samay 18 manit dinañ ko jëflante du dëgg parce que Pokola mi nga xamante ne moo doon bëri ak Liss buñ dajee cër la ma jox day ñëw nuyu ma ñu wax li ñuy wax mu dem yoonam dépassé wu ma saagawu ma xasu ma da ngay toog sax nga dégg kenn naan benn mécontent mécontent naan waaw xam nañ lépp mais boo xamee lépp lan la vie privée jàmbur yi ñuy dugg pour lan la bëgg xam sa gént bëgg a xam gént sa gént morom pël bu rafet amul jëkkër am far man awma lu may nëbb nëbbatuuma awma lu may rendre compte kenn mais lan moo tax bu góor ak jigéen nekkee ay xarit ñu ne diw faram la wala diw gelam la mais ban dëkk lañ nekk man kenn daa xam ci man ñàkk fayda wala matadi gën gi mbindeef la ñuy roy lu ñu wax ay soxnaam yëpp a ko waaye àdduna du neex bañ doon gën gi mbindeef wala ñu jege ko ceer bi sax duñ ko doon ci moom man góor man pël su ma la magee góor bu ma la magee sax ñetti at pour ci relation yàlla bu ma la xam sax yàlla boo yegg si ñetti at laa la wax xam nga ñetti at dafa bëri mm-hmm. man lii sama doom la sooy xool ci suñuy at liis magee naa ko sept ans mm-hmm. wala dee góoma mm-hmm. kooku sama doom la du ay gis nga yaay yaay lay lay woowee waaye ku la ne dem su ma la gisee day mel ni yaay bi ma jur kooku lan la la desel ci àdduna nañ waxante dëgg mais bëgg a nit ñi man kenn mënumaa déstabiliser man bi may paas di ñëw nee naa leen benn sac laa indi jógee Kaolack jógee wéeruma ci kenn awma banaaloo kenn puusuma amul mbindeef buy taxaw ne maa tax donte ndimbalu yàlla du ànd ak maa tax kenn boolewuma ak kenn fi ma yegg si fii yàlla suñu borom la ak sama ñaanu yaay duma sàmba duma demba man juddu naa ba toll nii ma toll kenn mosumaa taaj teesante kenn mosumaa wax ne ma kaa yaa fi waxoon kenn mosumaa wax ne ma lii ma waxoon ci kanamu pël laa ko waxoon kon bu génnee pël la man sama yaay tiitaluma ko jommaluma ko buñ tuddee sama tuur fitam bi du dem mm. ndax xam na doomam maandu na mm-hmm. gàtt na làmmiñ mm-hmm. gàtt na tànk te du wax lu ñaaw Mm-hmm. waaye gis nga ku dugg ak man ci waxante. Mm-hmm. di nga daw te doo bëgg mu di nga bëgg mu jeex te du jeex mm-hmm. ndax fii loo xamal nit loo xamal nit ba war ko ko waxal mu ngi la xamal lu ko gën a pire ne patt ak moom man kenn mënu maa xokkatal te nit ki lépp lu muy def moom la engagé. du dëgg loolu engagé wul kenn man li xew si jamono bi daf ma jaaxal yàkkante waxante lu ñaaw waa fii kenn yow nit ñi dañoo nekk ay muuma sa c'est que moomay sax dañuy liyaarante mm-hmm. yow mun nga fee waxal nit lu mu la munta wax loo xamal nit nit xamal la la lu ko raw mm-hmm. mais yàlla dafa sàkk guddi sàkk bëccëg nit la muy def tàgguwu la waxu la dugalu la si ñàkk a maandu sa weesul ngay liñ mati nit di lijjanti nit mm-hmm. waaye man samay 18 ku ci dugg di nga ci bugg a génn mu tëla dangaa pànk ba pàngal barki alxuraan dañuy naan ay pël dafa bëri histoire man kenn musuma àtte xeex man kenn musuma àtte xeex musuma tooñ nit dugguma ci daraay kenn mais nag imaginel am na loo xam ne neexut ci xol nga toog ñu woo la téléphone di la wax di n'importe quoi nga réagir nga réagir nga ñu ne lu tax nga defee ni waroo woon def lii mais yow lan nga nañ waxante dëgg tey bu masa sañoon mm-hmm. mel ni soxna jaara wala maam maam kii ni yow kii faatu wele mm-hmm. wala maam asu jànk mm-hmm. doonoo ñoom du dëgg mais lan moo tax ñu lay tooñ pour lan Pokola ba Youssou Ndour di ba rek Talfa kan la faral daa toog wax ko. mais lan moo tax moom waxuñ ko saay ko ko. Ah, léegi nañ waxante dëgg léegi yow kii nii yow Ada Fass kan la faral. mais fii nit ku nekk yaa ku la neex ngay ànd man lii faraluma ko lii sama doom la man pour yeneen prochain adversaire lii si ak seeni entourage ngeen nekk ay nit man yooyu déranger wu ma delluloo wu ma ginnaaw. man lii taxut nga jox ko wax nañ man lii ba mu dalee bëre ba tey rek maa mos a gis open press list man jàmm gën benn open press laa fa mos a def muy muy Laurent Ndiago mm-hmm. laa fa mos a dem mm-hmm. te boobu laa fa gis wala mm-hmm. ah. di la woo man dam su ma yoroon ndam est-ce que du génn sax seen kër seen biir kër googu lay toog ndax coono la dem dem stade bi rek coono la bëre beeg dóorante bi coono la di su ma yoroon ndam dama naan ko bul bouger centimètre toogal seen biir kër ma jox la ndam bi jarul ngay dem couronne bi bu nekkoon sama loxo du ma di na ngaf nga fi lan la mooy problème bi démb rek am na benn booy stade bu ko def di wax ma ne ko xee dangaa réew xamadi man duma ma caw juugu kenn ku ci ñam namm sa caw juug dangay dem ba marché nga dugg nga lekk ko man kenn mënu ci man ñaar dërëm lu dul xool bàyyi ma ne ko boo wàccee barke alxuraan ma def la comme jigéen nangu waaw ma ne ko da ngay wàcce ma ne ko góor nga man jigéen laa boo wàccee ma def la jigéen barki Seydina Muhammad te bu wàccoon keroog lañ koy bàyyi moom dootul sax ñëwati stade uhuh. mais lamb ji jeex na wala jeexul même bu jeexul sax làmb la woon jeex na ñoom ñaar la. ñoom wootante nañ ñoom ñu ngi ci jàmm. mais nañ waxante dëgg. di déstabiliser bu ñuy toogee seeru xam nañ lépp. man ku xam lépp ak ku xamul lépp li ma la. man li ma concerné mooy man li may def man tooñu ma kenn dugguma ci daraay kenn mais tooñ moo baaxul. soo waxee nii nii nii am nañu wax tey jii nii nii nii may waxee rek bu génnoon ñii dinañ la xas. ñii duñ ànd ak yow mais gis nga naafeq rek moo dul ànd ak nitu dëgg naafeq bëggul dëgg chaque fois day xool lu ñaaw rek mu di ko wax man yàlla dogal na ba ma juddoo tool ni ma tollu ba tey mu musuma commentaire négatif ma waxal nit lu ñaaw ci net su ma leeree ne lii may xool sa arrangé mo may romb c'est pas forcé di yaa moom sa connexion yaay fayal sa bopp sa wifi kenn fayelu la dalay neex nga seetaan matu bu la neexee doo ko seetaan mais saaga yi pour lan la saaga yow kay ñeme nga mais woowal nit ki téléphone nga ne ko nañ a fi mhm. looloo neex di waaye di saaga nit ci ay média ak ay ay commentaire jërëjëf Bal jërëjëf Bal ñu duggaat